asalaamaaleykum si internet Dakar Midi gannaaw bañ leen nuyoo siyaar di jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen ñaanal koor gi ñu dugg yàlla defal ñu si jàmm li jot woon nag yàlla defal ñu ko ay xéewal li nga xam ne moo xew si réew mi yàlla defal ñu ko jàmm mais dama toog ak ki nga xam ne mooy ndaanaan kenn di ko présenté si même réew kookoy doomu Bène Tally kookoy doomu Grand Dakar waaye kookoy doomu Liberté 6 maanaam soo ko tuddee rek maanaam sa xel day dem si maamam mais teewut damay bàyyi tuuti rek mu dugg nuyoo ndax su nee dar rek ndaanaan dëkk na dama ko bàyyi mu nuyoo ndax dañ ko gëj a gis moo la nuyu naa la. mais maa lay ziar mon frère Thié ah di la nuyu bu baax a baax a baax di kontaan nag si ñëw bi nga ñëw fii tey seesi ma comme ni nga ko waxee di xool nan laa nan laa fas yéene ndogo. waaye nag waaw waaw waaw dëgg du neex waaw di nuyu nag waa Sénégal comme ni nga ko waxee. di nuyu. waa diaspora bi parce que boo nee moo Lamine Ndiaye Rose rek ëmb na lu bari ndax kuy sa maam Doudou Ndiaye Coumba Rose defe naa ne diaspora bi faw ñu leen di nuyu di nuyu nag waa Ndakaaru fukki penc ñaar yëpp maa ngi leen di ziar di nuyu nag HLM bi nga xam ne fii laa juddoo fii laa defee suma football fii laa defee suma jàng fii laa commencé suma carrière musicale comme ni nga ko waxee waaw di nuyu nag képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan maa ngi lay ziare bu baax a baax di la nuyu di la dellowaat kàddu gi. waaw na ma Lamine gannaaw bu nga nuyoo ziar yi nga xam ne mooy sa internet wala di ziar yi nga xam ne mooy sa fant tey ñu xamul Modou Lamine Ndiaye Rose tey mën na doon wax tey kii Modou Lamine Ndiaye Rose loolu lañ tontu. waaw mais Modou Lamine Ndiaye moom benn benn benn jëwriñ laay wax rek benn booy la boo xam ne moom euh, defe naa ni doomu HLM la comme ni ñu waxee wax naa ko léegi si ay wax HLM laa juddoo fii laa màggee HLM laa juddoo màggee HLM 5 kon doomu HLM laa pire nekkoon. élève comme ni ñu koy waxee doon jàng dem ba terminal comme ni ñu wax def deux fois bac mais yàlla def amul ma suivre suma football parce que avant musique bi football laa doon njëkk a def ku xam Mawla Ndiaye Rose xam ko si football ba pare sama tour dafa njëkk a dem si football bi avant Ndiaye Rose bi parce que moo la mi leen ma daan woowee maa ngi doon football doon football nawetaan HLM def ay ay ay test façon test bu ne def naa ko jaraaf jàmbaar et tout donc yàlla def après ñu soog a démarrer nag sunu carrière musicale waaw moo la mi Ndiaye Rose kooku la ah Moustapha Ndiaye Rose di suma waajur bu góor Fat Ndoye Mbaye di suma waajur bu jigéen donc ah dëkk HLM nekk doomu HLM daal doon artiste loolu laa mën a wax. kàddu yi rafet na bu baax baax baax tey suñu bëggoon xam tey Mawla Lamine Ndiaye fan la njëkk a téye micro nga xam ne di woy ndax suñu nee du Ndiaye Coumba Rose mooy sa maam maanaam si wàllu tëgg lañ ko xam tey ba nga dem ba yoru musical foo tourné xale yi mag ñi ñëpp Mawla Lamine Ndiaye Rose Mawla Lamine Ndiaye Rose. Mm-hmm. waaw mais loolu comme ni ñuy wax ah que boo xoolee loolu mille vingt deux mille vingt deux mille vingt et un si la soog a démarré suma carrière si ay woy comme ni ñuy wax rek euh, boo nee. kuy sa maam Doudou Ndiaye Komboro si sabar lañ ko xamee mais ku ne xam ne ni dama am beneen maam boo xam ne moo jur suma yaay muy Badara Mbaye Kaba kooku nag moom moo daan waay moo dëkk Medina donc mi maam Badara Mbaye Kaba si sama côté kër yaay si laa jëlee way wi donc macha allah sama première bi may njëkkatee micro defe naa ni loolu yàgg na. yàgg na ba may téye micro parce que sama maam dañ daan ànd si ay concert yoo xam ne dañ ko daan def day am parti boo xam ne parti Baye Fall la donc si parti Baye Fall bi man maa doon way donc woy bi daan na ñëw comme ñu ko daan foolantoo si cant yi si nangamal nangam bu ñu demee gars yi di sikar ñuy aaw foofu yooyu yëpp dañ dañ daan dañ daan foolantoo ay way mais woy yi normal nag ci deux mille vingt et un si la si la juddu. 2021 la ñu commencé way ñu def suñu ay concert premier concert HLM fii ñu def ko HLM yëpp génn. mu fees dell HLM ñëpp ñëpp ñëpp génn. mais ma ñëw jour boobu maanaam ma nga tëggee li nga xam ne mooy concert tournée gis ñu ñëpp ñëw wuy si la en tant que jeune tamit en tant que nga xam ne mooy dun jaay Coumba mooy sa maam. Mm-hmm. tey ba nga demee bay jël euh, opté way tey sa waajur nangoon nañ pour nga way wala dala bëggoon carrément des ci tëgg bi ndax tëgg ak taasu ñoo ànd. waaw xam nga xam nga xam nga mooy li ñuy wax rek xam nga tëgg ak taasu xam nga aar moom dafa saturé sax la ñuy wax mais yow man damay am benn couleur boo xam ne dafay uteex ñeneen ñi parce que tey moo Lamine Ndiaye ko neexee day dem tëgg ji léegi sabaru école wala mu dem tëgg ji léegi tànn biir bu ma neexee léegi ma dem teg sama orchestre daal di woyal boo xam ne dafay def mariage ma ñëw woyal la loolu yëpp dafay am donc man dama am ñaari ñaari ñaari côté yoo xam ne dama wuteex li nga xam ne tey mooy gars yi dama wuteex ñoom bu baax a baax a baax a baax a baax a baax si côté boobu may ñëw nag si concert yi nga xam ne ba ma ko njëkkee def suma premier concert nit ñi ñëw non dafa dafa loolu maanaam dafa ma pouse dafa tax tey su ma waroon def benn ma def ñaar wala ma def ñett loolu nag ma moo waral ma indi sama première soraano ma def sama première édition soraano ñu gunge ma mu nekk affaire boo xam ne loolu du ma ko fàtte si li waa HLM ak waa Ndakaaru lin ma defal parce que Molamine léegi moom laay wax nekkatul Molamine Ndiaye Rose HLM kese non non léegi dafa law Sénégal la ak diaspora yi parce que yàlla def na loolu liggéey moom mooy yóbbu tur liggéey mooy musique dafa liñ naan musique maanaam dañuy dégg sa tur fu si musique fekk yow eggoogoo fa musique moom moo mel noonu donc macha allah ñi ngi si liggéey boobu noonu continuer waat liggéey bi yàlla def ñi ngi ñi ngi def ay Sorano di def suñu ay concert donc sant yàlla moom laa mën a wax quoi. waaw mm-hmm. ah, tey ñu gis li nga xam ne da tëgg Sorano yàlla def nga fees dell tey tey su ma waroon tey wax pro projet ki nga xam ne moom Lamine Ndiaye Rose yan projet nga may wax ndax lu si ëpp suñ gisee xale su tollee fii génn gaa yi bëgg day woote comme chaque mercredi wala chaque samedi di door ay soirée pour gars yi gis la man lu si ëpp mu moom Lamine Ndiaye Rose ay sabar lay dem tëgg wala gars yi dañ ko bëgg maanaam sa digganteeg fantasy ak li nga xam ne moom waaw damay ñëw si soirée yi parce que da nga wax lu am importance au début daanoon daanoon naa def ay soirée mais xam nga tout début est difficile donc dañ daan def ay soirée yoo xam ne parfois mu neex parfois du du neex mais xam nga après mu jur ay quelques coow xam nga donc faaw nga raxasaat parce que bëgguma am public boo xam ne tamit public buy boo xam ne la tey su ma waree tëgg diine daggalaa du ma ko mën a tëgg donc dëgg la nga nekk artiste ngay def soirée muy fees nit ñi di ñëw loolu yëpp dëgg la mais tey ku mel ni Youssou Ndour ku mel ni Pape Diouf ku mel ni Wally Seck da jël exemple si ñoom dañoo am benn public boo xam ne dafa rafet public bu riche la donc tey boo leen woowee kin faat dañuy ñëw boo leen woowee feneen ak feneen dañuy ñëw loolu c'est très important si artiste man nag xool naa si sama public ma xool ni ah war naa mën a toog defaruwaat waxtaanaat ñi ma war a waxtaanal xool public bu gën a riche xool public bu gën a rafet boo xam ne tey yow di nga mën a déplacer wu ñëw si samay événement kilifa bi nga xam ne tey mi ngi palais wala mi ngi feneen a feneen dina mën a déplacer wu ñëw si sumay événement donc loolu rek moo tax mais soirée yi bu kàttanu yàlla si korité gi bu nu bu nu waa bu nu korité ba pare si jàmm salaam rek dañuy tàmbaliwaat soirée yi mais nag ak public bu bu nice public boo xam ne tey yow da ngay yàkkamti tey moo la mi joué chaque mercredi wala chaque samedi nga yàkkamti sañ sa ba jekk ñëw pour mën a seetaan si donc loolu moom moo tax donc musique moom moo demee noonu lu ñuy xool la di ko xoolaat jarul loo xam ne dañ koy yàkkamti du course de visite ñun course ñu jéemu ñoo def loo xam ne tey. moom Lamine jamono ji soo nekk il faut nga course de ndax showbiz moo laaj loolu. waaw showbiz moo laaj course mais laajal ñu course ñëpp fan lañ fan lañ mujjee ñii course yëpp laaj leen fan la ñu mujjee yow yaa ngi si aar man maa ngi si aar man defe naa ni aar moom laay wax chaque jour li ma fi jaaxal si aar bari bariwul parce que nag ku ànd ak Doudou Ndiaye Coumba defe naa ni dara warulaa jaaxal ku mel ni Youssou Ndour kursul dëgg la ay jamono amoon na benn kii bu am doole parce que Omar mi ngi fi woon nanga nangama nangam mais ñoom dañu amoon ku yaa ngi woon suruq di liggéey ñun nag ay xale lañ dañuy soog a tàmbali rek mais faw nu xool li nga xam ne tey fii ak vingt ans wala fii ak trente ans dañuy continuer suñu musique tey fii ba vingt ans fii ba trente ans mun naa def trente ans de de scène loolu laay ñaan mais tey am na loo xam ne bu fekkee courbe de vitesse vitesse la rek nga bëgg doxee noonu di dox di dox di dox indil benn. carrière bu gàtt boo xam ne après dañ naan waaw moo Lamine moom feeñoon na waaye kenn gisatu ko donc loolu loolu moom moo tax waaw looloo tax ma ne la musique du course. non course la jamono yi gars yi ñu course de moo Lamine boo toogee fii ne ay musique du course ak yooyu noonu. man na course ma parce que xam man sama sama musique lépp dama koy teg si accès gisoo man maay xale bi nga xam ne tey moo dugg si musique def deux mille vingt deux mille vingt et un Sorano amul ku ko fi def si waykat. amul à part visi mi nga xam ne moom yàlla yàllaa koo ko defaral mais tey man su ma neexee dama naan macha allah si sama carrière maa ngi sama tànku carrière nag nànk par nànk mooy li may wax su may course xam nga si la laay course lu ma génnee mu nekk it si loolu laay course lépp lu ma génnee nit ñi bëgg ko nit ñi di ko fecc nit ñi di ko béggee man si loolu ci loolu laay dox loolu moom mooy course bu baax bi maanaam fexe ba loo génnee bu ko nit déggooy rek na ah waaw góor waay lii neex na waaw man loolu laa jàppee course mais nag lii ñëw nànk nank la au fur et à mesure pas à pas boo yéeg si escalier ci un ngay commencé yéeg ca kaw mënoo yéeg ca kaw di wàcc ci suuf lu leer la waxi géwal laa la wax. di nga waxi géwal la wax léegi ba léegi dañ koy laaj li nga xam ne te nit tooga naa sa ay fan su ne Modou Lamine Ndiaye ak xale yu jigéen ñi mm-hmm. waaw relation bi nga am wala man Lamine Ndiaye Rose ak li nga xam ne mooy fansam yi. waaw moo Lamine Ndiaye Rose sax xale jigéen ñi fii moom dañuy wax rek musique moom. ñu ne yow moom foo moom moom. yow tey doo ñëw sama soirée boo fi fekkee ay góor rek bu ma organiser waatee soirée doo ñëw ci kàttanu yàlla ak keneen ak keneen ak ñii ñuy seetaan kenn du si ñëw. Mm. parce que musique dafa am lu ko yor. Mm. musique yi fi caaxaan la. mais li ko yor mooy jigéen ñi ñoo ko yor. Mm. parce que am na ñuy dem soirée keneen ak keneen moo artiste bi si boppam indiwu leen parce que ñan ñoo leen fa indi xale yu jigéen ñi pour dire vrai ñun ñëpp fii la ñu dëkk Sénégal la ñu dëkk man parfois ma dem soirée benn nangam bu ma fa ñëwee fekk fa ay góor kese dootuma fa demaat de. Ah. ci kàttanu yàlla kenn duma jisaat foofu. waaw man soirée yi may dem na am yaaboo yoo xam ne macha allah bu ma ñëwee duufal samay bët déglu boykat bi mu neex. waaw jigéen nag dafa am solo. na hmm. jigéen mais su jëlee foofu noonu est-ce que doo teel takk jabar tamit benn yoon. waaw teel a mais man ku ku ku ma xam-xam ni àlla l'âge de vingt laa amoon jabar. Hmm. donc yàlla weddi. Hmm. donc pour teel a takk jabar. defe naa ni donc macha allah am na yoo xam ne jot naa si dund. dund mais sant yàlla. donc moom laa mais ak carrière bi nga am nii nii nii ak ni la xale jigéen ñi bëggee ak yooyu noonu. nga ut kenn koo xam ne ñu xam ne kii kat moom Lamine Ndiaye Rose mooy mooy. jëkkër waaw waaw dañuy jël sunu temps rek man moom damay jël sama. affaire maanaam soo bis maanaam ni ko gars yi di defee soir day jot nga dem soirée diw wala soirée diw waaye ni ma gis soirée yu bëri duñu fa gis ki nga xam moom mooy Lamine Ndiaye Rose. wala dafa amut ak relation ak yenn artistes yi. Mhm. wala moom moo bëggul dem ay soirée ñeneen ñi. waaw xam nga nag euh, bu dee relation ak artistes yi moom defe naa ni moo Lamine Ndiaye Rose loolu yàgg na ca jamonoy tànn biir la. artistes yoo xam ne tey mun naa la limal tey cinq artistes yoo xam ne El Hadj Keita ay Pama Dieng ay Tarba Mbaye ñoom ñëpp damay def samay événement ñuy ñëw mais xëy na man mu ngi soog a jot pour ma mën a jug commencé dem si soirée yi wax fa dëgg yàlla maa ne woon duma dem benn soirée pour l'instant mais dafay soog a jot nag incha allahu dinañ ma ji si seenu artistes yëpp ba ci waali dinaa fa yéeg dinaa jël micro dina wax li ma war a wax ci kàttanu yàlla loolu nag dafay soog a jot waaw parce que man dafa am lu may liggéeyee am ñu nekk suma ginnaaw moom laa lay wax na la dama yàkkamtiwul suma dara parce que tey am na ñoo xam ne bu ñu xamee fooy foo foo foo jëm sax doo yegg donc nag loolu yëpp xam nga ni dafay rafet dinañu def ay featuring tey ci artistes yëpp parce que man artistes yëpp a may soxla am na ñoo xam ne dañ may soxla si percu bi may def am na ñoo xam ne dañ may soxla ci leneen ak leneen donc incha allahu bu neexee yàlla nan ma xaar nan si soirée yi moo la min dina ñëw dina sañse dina way dina ambiance dina ñu bégee kon nag wasalaam. wasalaam léegi dañuy dugg ndog comme que heure ndog jot nañu ndog après doo doo eggali daf yëfu géwél kon nag ay <laughs> ah, ba ñu ngi ci ndog comme lu mu ko waxee rek mooy ndogu géwél te géwél ñoo xewle. tey moom yëfu géwél rek lañ koy def. ñoo ngi nii affaire yaa ngi nii saucisson yaa ngi yaa. pâtisserie yaa ngi fi. neem yeeg crevette yaa ngi fi nañ ko def yëfi géwél. ngay dawul dawul bëggoon laaj. Mhm. waa Ndiaye Rose ñoo ngi nii xale yi nga xam ne ñoo xew si jamono. xale yi nga xam ne lu ñu tëggul baaxul. ñoom la xale yi di wër. bu ma kar xam ma maa ngi ñëw si yow. waaw barki yonent bi waaw aja. léegi dama bëggoon laaj. comme que en tant que musulman. tey ni mu bëggoon xam mooy Lamine Ndiaye Rose. Mhm. sooy ndogu looy wax. waaw. su may ndogu. lu may wax ah. dog jot na si jàmm. allahuma laqasum. wala. <laughs> xaaral ma xaw ma xaw ma benn tàndarma moo la. papa dara joxal ma saa lu ñuy wax. ci kàttanu yàlla man de si li ma jàng. li ma jàngal. booy booy dog. tàndama gi. da ngay wax yaa Allah. yaa saafi. yaa muxaafi ñetti yoon. yaa Allah yaa saafi yaa muxaafi. yaa Allah yaa saafi yaa muxaafi nga dog. mais am na am na gaa yi allahumma. ah man allahumma la ko sumb moom. ni ma ko jëmbalee rek. ah da nga mënul wax. Hmm? comme ça Jean Jean Pierre Almeida lu ma doon wax mu ne jullit yu bëri xam xamuñ nu ñu koy waxee. non man na bii lan xam na woo fa dëgg yàlla. allahumma laqal sum bi moom. wa mi ka amantu xaw ma lan farfir nii maa xatut. <laughs> bisimilah ndox jot na si Dakar ak li ko wër. alhamdulilah ah, dégg ngeen li nga xam moom la man Lamine Ndiaye Rose wax dañoo ko avancé rek man Lamine Ndiaye noo gisee li nga xam mooy showbiz bi mm-hmm. papa yaay doom tey ñu nga gis tey sa fecckat dem fenn di fecc sa nga gis ko nga ne dootul ñëw ci seen te noo ko gisee waaw xam nga nag euh, showbiz moom ma li ma ci mën wax rek mooy nañu fexe muy rafet rek parce que euh, man man man du ma si bëgg sax di si di si sori si côté boobu noonu parce que nit ñi parfois Sénégal dafa dafa nekk réew mu nakari waxee Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dafa naqari wax waaw mais côté showbiz il faut gars yi def si très très parce que ngor dafa am solo nit koy àndal ba dara doonul dara bu sunu boroom def tey nga nit ñi xam la alalu àdduna warul tax nga jóg di dem feneen wala nangam ak nangam man de man de du ko def. parce que nit ku ne sa bopp nga xam. fii ma toog nii fii laay toog. gis nga boo boo gisee li tax euh, bëgguma di dem sax si yenn soirée muy nekk individuel man kese parce que damay sóoraale suma ay frère parce que tey neex na ma dem soirée keneen soirée keneen kii ñu baatere ma ma am suma xaalisu bopp fàtte suma ay frère dafay xaw a metti boo gisee chaque jour ngeen may gis si yenn sabar yi nangam may jël ay yenn programme yi parce que su ma ay frères yi nekk suma ginnaaw la parce que tey su ma demee ba ñu naan Molamine Ndiaye Rose yàlla ñoom la ñoom ñoo ma jàppale. nit da am ngor si showbiz xaalis neex na lool succès neex na loolu mais ki nga démarré àndalox moom ci ngor ki nga démarré moom àndalox moom ci ngor ba yàlla ne def jàmm. bu boobaa dafay neex da xam ne lii yow yaa ko yaa ko liggéey tey Amady Badiane si Waly Seck dafa firi day xam ne lii moom moo ko liggéey tey Pape Moussa ci Youssou nduur dangay xam ne tey macha allah nit da am ngor da xam ni diw laay àndal ma yem ci kooku mais nag art partage la tey sentir naa man. ma am droit fekk El Hadj di dem di jouer soirée ma ne Cheikh Maguette comme moo may feccal ma ne ko ah mais demal am fa sa wërsëg loolu wàññiwul dara nit ku ne am na plein droit xool ki ko neex mu dem si soirée mu fecc ba doyal ñun amuñu lu ñuy commandé non parce que loolu mooy aar aar partage la mais gars yi nañu am ngor ma loolu rek laa mën a wax. na gaa yi am ngor na gaa yi gore na gaa yi di fàttaliku démb loolu rek laa mën a wax mënu ma wax leneen cee waaw ah, ngeen eh, kàddu yu mu yëkkati maanaam ne nit day am ngor nit day am ah, li nga xam ne mooy li li yàlla bëgg mais dañuy waxtaan tuuti rek ndax lu ñu dese si émission bi bëriwul. Mm-hmm. waxtaan li nga xam ne mooy si actualité nga xam ne moo xew. gannaaw gis nga élection yi nu mu demee. te ki ki ñu tabb di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom lañ fal li nga xam mooy président en tant que jeune tamit gisuñu mu Lamine Ndiaye comme ni ko yenn artistes yi defee. Mhm. dem woyal diw wala dem woyal diw tey ki nga xam ne mooy Bassirou moom moo jël moo li nga xam mooy mooy président. waaw xam nga loolu li ma si wax mooy damay féliciter peuple Sénégal sénégalais bi yëpp parce que Sénégal dañu jeunes yi doon wax naan jeunes yi dañoo inconscient. jeunes yoo xam ne am amuñu amuñu valeur xamuñu lan mooy lan mooy affaire vote je pense que ni ren kenn du ko wax parce que ren ki fal Bassirou Diomaye Faye mii jeunesse bi la jeunesse bi ñoo ko ñoo ko fal donc mu nekk loo xam ne damay féliciter patriotes yi féliciter peuple sénégalais bi di di kontaan si vraiment si jeunesse bi di wax ni ah lii nag mooy mooy mooy mooy mbiru yàlla parce que même président bi si boppam muy Bassirou Diomaye fay sax moom président bi mu nekk sax moom xam naa ni bu tëddee nelaw du ko gëmee mais daf fi fekk nag benn benn Sénégal boo xam ne dañoo doyal benn Sénégal boo xam ne dañoo bëgg émerger dañoo bëgg vraiment seen réew daa di avancé donc mu nekk loo xam ne man dama naan macha allah donc di félicité ñëpp di di ko ñaanal moom it ah li mu bëgg ci réew mi wala fi mu ñu bëgg yóbbu ci réew mi yal na ko saa borom oyofal ah ñun ñun ñun jeunesse bi ñu jàppale ko jàppale bi ñu koy jàppale nag mooy si yar parce que sénégalais il faut que ñëpp yaru. ñun ñëpp ñu boole doon benn yaru mën ko jàppale parce que bu ñu croiser les bras rek ne moom moo war a def lépp it ah du baax c'est la même chose donc ñun ñëpp faa ñu jug bokk ndey bokk baay tàllal loxo yi jug nag liggéey fexe àndox moom gunge ko mu defal suñu yi mu jëm kanam dëgg neexul. waaw ah, defal suñu réew ko nga xam mooy président euh, Bassirou Diomaye Faye léegi lu ñu bëggoon xam ne comme que temps bi jeex na sa kàddu gu mujj. waa kàddu gu mujj gi mooy vraiment sant yàlla parce que tey ñi fi toog nii sumay frère gis ngeen nii ñuy partagé ndoon ndog bi ñun ñëpp ñooy àndandoo bu naqar amee ñooy ànd bu bànneex amee ñooy ànd donc mu nekk loo xam ne dama leen di remercier ñoom ñii ñëpp léegi laa leen woo ku si ne ma leen woo na leen daw leen ngeen ñëw ñu bàyyi te yëpp ñëw mhm. donc loolu vraiment dama koy rafetlu di di si kontaan si ñoom di sant suma suma pap ak suma yaay ah, di sant nag ki nga xam ne nag moo fi nekk di sunu yaay di sunu lépp muy saajo bi nga xam ne borom ceeb yu neex yi lii premier attaque la rek mais xam naa ni dama leen di xaarloo ceeb bu weex bi rek parce que faaw ngeen toog nag jël seen temps daal di ndogg nag. waaw ceeb bu ngéwal gi. Hmm. ceeb bu weex ceeb bu tey laa commandé ceeb bu weex bu toog ceeb bu ngéwal gu toog. Hmm. waaw vraiment di kontaan nag si yow ah. hmm. ak sunu caméraman bu ñaawal bi. di wax ni waa Sénégal lépp lu ñu woor yal na ko sunu boroom nangu. te mu doon ay xéwal bàyyi fi sunu ay waajur bàyyi fi sunu sunu ay frère yàlla yokk xéwal yi. ah di wax ni na ma ñëpp ñaanal parce que xale buy soog a door laa nekk ci carrière musicale c'est pas facile parce que lu ne ngay gis waaw donc maa ngi ñaanal ñëpp di wax ni kontaan naa ci kontaan naa yal na yàlla defal ñu jàmm yàlla sàmm ñu ñun ñëpp jaajëfati waaw ah, moom Lamine gannaaw loolu dañ koy jaajëfal bu baax a baax am mbégte di eh, toogaat moom nee naa man ak moom door bi la rek commencé guñ man ak moom ndax dañoo war a fas lëmbee Ndakaaru lëmbee li nga xam ne mooy àdduna fas liggéey li nga xam ne en tant que jeune may jeune ñu a ba beneen di nuyu tamit sama cameraman Modou Ba dafa mel instant yi dafa xiif chaque instant mënu ma nuyu xoos xoos xoos mais kii nag <laughs> ba pulo ba boo paree daal am na ay njarum soo wax lépp a jëla <laughs> sa taare def lu la saf jëla sa taare def lu la saf